السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سيدي حبيبة من نيو دي زيار أه، دلو زيار الحاج موسى غاي نيك حبيبة نيو دي زيار نيك بريزيدون كوليكتيف انترناشونال دي طالب شيخ اوفيسيال خودي نيامبات امنا لو لو في خيوون ديبي لو 12 Mhm. ba tax euh, collectif bi ànd ak ay mbokk mhm. dem defi plainte. Mhm. Euh, léegi ñu ñëwaat ci ginnaaw rek. fan la plainte bu jugee ak ñaata plainte la ba tey. ñu dégg ni Omar Sall def nañ ko mandat dépôt. nga présenté wu wax mbir mi ndax ndax tamit am na ñu nga xamante ne ba tey mbir mi leerul seen bopp yow mi nga xamante ni yaa jiite woon collectif bi dem ànd ak ña ngay àndal tey yan leeral nga ñuy indi ba mbir mi tey fi mu jeexee tey ñu def mandat de déppo ki nga xamante ni moom mooy Omar Sall. ok Habiba ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziara. Mhm. ginnaaw biñ la nuyoo itam xam naa jiital ci nuyoo bi. sunu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour. Mhm. xalif général de Tidiane. Mhm. ñu jiital ko ci nuyoo bi nuyu mboolem xalif généro yi ci réew mi yépp nag. tubaarakallaahu xam naa wax rek ak opinion bi ndax li xew mhm. ak wax yu bari ci genn wuté na lol deug la ndax xam ngeen ni tabarakallah yeen ñëwoon ngeen fekk ci jamono ji ni yobbu sunu plainte yi mu tollu ci ay dizaine de plainte deug la ñu yobbon ko ci tribunal bu ndakaaru mhm. li ko waraloon nag du len lu dul ni mhm. amna na mbokk mi nga tuddu muy omar sall waaw kaddu yum ko ci sunu tarixa bi nga xamni mom moy sunu Mm-hmm. te moom la ñu jàpp. dëgg la. bi mu ko defee nag mu naqari taalibe tijaan yu bare nag wax dëgg yàlla. Mm-hmm. xëy na amaana li nu def. Mm-hmm. ci yërmande. mooy ñu xam ne dëkk bi am na yoon. dëgg la. ñu dem fi nga xam ni mooy yoon kalaame ko fa. loolu nag bi mu amee bari na nag wax yu ci juddu yoo xam ni wuute na ak li am. waaye ñi xamal nit ñi rekk ni. Mm-hmm. ñun ay taalibe tijaan lañ. am ku nu tool tooñ laal sunu pas-pas. Mm-hmm. bi ma ko defee itam du ñu toj kër kenn du ñu songu kenn di fajal sunu bopp. Mm-hmm. waaye am na lu nu tënk ci réew mi muy yoon. ñu dem ci yoon woowu. kalaame ji sunu naqar woowu. pour ki jàpp ne dafa am ku nekk ci sunu gannaaw. wala dafa am lu nek suñu gannaaw mhm. ñu xamal ko ni ñun dara nekul ci suñu gannaaw ñun passé nan loolu ndax collectif international des talibé cheikh officiel mhm. ak collectif daara mam mawdo wat sunu pas-pas mhm. ak yeneen kuréel yi ñu andal ci liggéey bi ku leen xam-xam ne duxuñ ci luy nu rek politique wala luy laqut ci gannaaw kenn dëgg la waaye ay tijaan la ñu ñu tooñ ñu am seen naqar joytoo ko fañ ko war a yoonu réew mi bu ko defee daal loolu la euh, leer la gun incha allah. waa baax na mais mais mais boo de mais boo xoolee maanaam ñu bari. Hmm. jàngat biñ ci jàngat dafa am ñu njëkk a jàngat ni. yonent bi yonent bi kat ñu bari tooñoon nañ ko ñu baale. si Seydina Cheikh nangam ak nangam Maam Seydil Hadji Malick euh, euh, système bi mu def ba dëkkoog ñi nga xamante ni gëmuñu woon yàlla nee pour quoi pas maanaam ñu am na ñi nga xamante ni lu tax maanaam d'accorduñ ci foofu la ñuy teg mhm. collectif bi maanaam pàcc boobu tey noo koy jàngatee ñi nga xamante ni argument boobu la ñuy tey di ko commentaire di ko commentaire maanaam di wax ni tooñ nañ fi diine dégg naa ko. waaw tooñ nañ fi diine saaga nañ fi diw saaga nañ fi diw ñii daan nañ baale nañ bi tooñ nañ ko mu baale nangam nangam loolu tey nan nga koy jàngatee. waaye ñooñu nag euh, Habib dama leen di delloo rek. ci mhm. euh, sunu maam Abdul Muttalib. Mhm. radiya bi nga xamee ni tubaarakallahu. Mhm. Abu Raha ñëw na pour màbb si Kaaba gi. te mu doon wër gëleemam ya bi mu dikkee bi ñu bi Abdou bi Abou Raha ñëwee pour màbb si Kaaba gi. Mhm. biñ ko ko waxee. dafa continuer ca lancé ba mu nekkoon te mooy lan doon wër ay gëléemam. Mhm. suñu maam Seydi El Hadji Malick am na fu mu koy nettalee wa xaala lil bayti rabban sawfa yaxfaduhu. Mhm. azima qawmika laa abqi siwa nuami. diine ji yàllaa ko moom. dëgg la. moo koy aaral boppam. ñun nag. ci biir diine jooju. fi koy wéré mhm. loolu lañ jël génné ko ci diiné loolu moñu nakari hmm yaangi ngi dégg dëgg la waaw diiné yalla moko ko bopam ñun ñëpp ñoko bok bokk mhm. te yalla mi ko mom mhm. am fayda fayday dana ko samal bopam dëgg la ñun nak diiné moomu yalla mom di ko bopam ñun ñi di ko wër buntu biñ koy wëree buntu bobu lañ gañ dëgg la buntu bobu lañu jël wéddi ko ni eh, bukkul ci diiné du kon léegi loola ñun la ñuy défendre. Mhm. diine nag moom dañ koy delloo yàlla yàlla moo koy sàmmal boppam ma delloo leen ci waxi Abdul Mutalib ja mhm. wa xaala lil bayti rabban sawfa yaxfazuhu mhm. azima qawmika la abqi siwa nuami ñu nit sàkk wuñu lu dul suñu bunt bi ñu jàpp ni mooy suñu bunt bu ñu war a jaar pour nekk ci diine di ci doxal suñu diine di ci sàkku ay ngëneel bunt boobu lañ jël génne ko ci diine macha allah am waaju waaw. waaw waaju ko génne ci diine nag mooy waaj yi nga tudd. loolu moo ñu naqari ñu yóbbu ko ci yoon. Mhm. Euh, wi nga xam ne moo boole tënk. dëgg la baax ne may léegi fi mu nekk nii maanaam euh, li ngeen di mm. xaar lan la actuellement ngir yoon def ko parce que lu ne nekk rek euh, dëkk bi am na yoon mais fi mu nekk nii yéen loo leen di xaar wala yi tamit buñ leen ñaanee njëkk di ngeen delluwaat parce que bari na ñi nga xamante ni ñu ngi naan pour ngeen retirer plainte yi mais béy woy na actuellement. lan ngeen bëgg exact da ngeen bëgg yoon wax lii lii ak lii ku ne nekk mën a muñal sa moroom wala ku ne nekk mën a respecter sa moroom actuellement. waaw dëgg la loolu Abiba xam nga ñun ay taalibe Tidiane lañ taalibe Cheikh Tidiane xam nga ni amul mm-hmm. benn rànkiñe mm-hmm. ak benn nit boo xam ne jàpp na ni yaa ngi góor góor góorgóorlu ci diine. Mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi ci diine rek. même ki nga xam ne sax bokkuñu moom di jàmm lañ koy yéene ndax loolu. dañoo tàggat suñuy xel tàggat suñuy xol tàggat suñuy ruux. dëgg la. kon amuñu benn xaar ma yàlla ak benn jullit bu nu sañoon Omar Sall suba mu dellu ca njabootam. dëgg la loolu lañ ko yéene. Mhm. waaye nag dañoo jàpp ni. Mhm. dafa am lu mu xamul. Mhm. mooy sart yi tënk réew mi. dëgg kenn ku nekk mën ngaa jàngale sa diine. te na ko gëme nga jaamu la nga gëm te na ko gëmee. wallahi wallahi. te kenn du balee sa sentiment. dëgg la dëgg la. bu ko defee loolu rek lañu bëgg bu demee ci yoon xëy na yoon rek ko. Mhm. delloowaat ko à la raison mu xam ni. Mhm. mën na jàngale te du laal nag pas-pas yi jàppoo. Mhm. ndax loolu Seydina Habib. ku ne xam na ni bari na réew yu mu taal. dëgg la dëgg la. boo demee Syrie gis nga la fa xew. réew yu bari nga gis diggante si euh, sunnite ak chia. ci xëccoo bu metti loolu nag comme mën na indi guerre civile. loolu kenn ku nekk ci ñun war na cee bàyyi xel moo xam nga nekk taalibe tijaan moo xam nga nekk beneen tariixa bu mu mënti doon. Mm-hmm. wala ak loo mënti gëm. Mm-hmm. nga dund li nga gëm. te mm-hmm. bañ laal yeneen yi nga xam ne mooy pas-pasi jàmm ndax loolu mooy jàmmi réew mi te réew mi jàmm lañ ci bëgg. Euh, macha allah léegi pour ñu mën a euh, dem mu gaaw rek euh, semaine bi passé gis nañ benn imam laa mën a wax mu nekk ci benn mm. plateau télé. muy wax ni eh, d'accord comme ni nga ko waxee ci kanam am na ñu nekk seen ginnaaw wala mbir mi mm-hmm. danoo ciblé ki nga xamante ni dafa am maanaam mbiru réew boo xamante ni looloo tax ñu mm-hmm. dem yëkkati ko gën koo sible mm-hmm. pour jàpp ko loolu wax yooyu tey nan nga koy dëppalee ak yéen seen plainte bi wala mu mel ni kooku da leen a dut baaraam waaw xam naa damay jàppe sax moom li mu def tooñ dama koy cité nommément parce que man yem naa ci vidéo bi seetaan naa ko dëgg la Mm-hmm. ndax dafa nekk ci lancé boo xam ne ñun nekkuñu ci. dëgg la dégg naa moom wax ni moom taalibe Cheikh la bàyyi mu xaddam la day maye werd. Mm-hmm. moom nag loolu am na beneen lancer bu mu boo xam ne ñun nekkuñu ci boobu lancé mooy day politique te ñun politikuñu. dëgg la léegi nag bu waxee ni dafa am ñu nekk suñu ginnaaw wala dafa am lu ñu bëgg a divertir mooy. Mm-hmm. dafa deful en tant que imam. li mu war a def ndax wa in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu. fatabayyanu. mbir boo ko déggee. bu ñu la ko gaaralee te xamoo nu mu demee mm. da ngay jéem a laaj mbir ma na mu demee. dëgg la su ma woowoon man en tant que président collective bi wala mu woo kenn ci collectif Daara Maam Maodo. Mm-hmm. wattu suñu pas-pas. Mm-hmm. mu jéem a gëstu ci réew mi am suñu numéro jafewu ko. mu laaj xam li muy wax lan la en mm-hmm. tant que imam. beneen bi ci des dégg naa ko sax mu ni man collectif bi xawma ci kenn comme xamu ci kenn bi ñu ko laajee da cee waroon a maandu. dëgg la. ndax nag min xusni islaamil ma i tarkuhu maa laa yaanihi mhm. lu sa yor nekkul da nga cay génn. maandu ca. Mhm. bu ko defee moom loolu rek laa koy la la laa koy laa koy dénk. Mhm. lu mel nii su amatee. na ci tey en tant que mu askanale boppam taalibe Tijaan li ñu naqari war koo naqari. beneen bi ci des dégg naa mu wax ni sax dañ ko waroon a delloo ci xam-xam. te jàpp naa ne bu dee ci wàllu xam-xam. lépp luñ fi wax am na ay mbokki taalibi tijaan yoo xam ne bind nañ ci ay téere dëgg la pour joxe ci ay talxiin yu wér dëgg la ku mel ni oustaz Khalifa Mbuub mhm. ku mel ni Kama Thiaw mhm. ku mel ni oustaz Daouda Camara ak ñeneen ak ñeneen bi su yàlla sàkk yëg na ni ñi ngi def ay tontu yuy dellu ci ay lay wér ci lislaam ci diine yoo xam ne ci la tarixa bi tënku kon loolu yaakaar naa ni def nañ ko démb tey soog a ñëw dëgg la léegi nag bu continuer nag di def loolu mhm. te mën a gaañ ñenn ci njaboot yi am ci ñoo xam ni sax bu ñu àndul ak seen sago mën nañoo jëfandikoo loo xam ni mën indi ay mhm. kon collectif bi dama jàpp ni li mu def ñëpp dañ ko war a salier mooy ñu kër kenn taaluñu kër kenn fajaluñu seen bopp waaye dañoo dem ci mhm. yoon pour yoon delloo ko fi nga xamante ni si mooy delluwaay bi macha allah pour jeexal maanaam mhm. fi mu nekk collectif bi maanaam nit ñi xàmme nañ leen ba pare mais taxaway yi ngeen taxaw manam filé yam wala da ngeen di fi ngeen da ngeen di maintien ni ngeen di taxawé ci tarixa bi ak ci diiné ji ngir ëlëk tamit li baña amati wa masha Allah Sidi Habib ni ko waxé na la démé parce que collectif international des talibé cheikh officiel mhm. dara ma mawdo wat suñu pass pass ak mbolim jeunesse tidiane bi ànd taxaw temm mhm. ci lu melni mhm. seen liggéey yamale wuñ ko fi rek parce que itam li suñu ittee mooy fexe ba mboolem tarixa bi lépp lo xamné lu ci nek la rek ci ay ngeenel Mm-hmm. ak itam li nga xam ne mooy tarixa bi ñu fexe ba wattu ko di ko ñoom ndax itam nag bu fekkente ne da nga am kilifa yu baax yoo xam ne dañ laa wutal loo jàpp ni mm-hmm. dara melul ni moom da ngay am fulla ak fayday ki ci bokkul ni ko sëriñ Abdul Aziz Amin al Amin daan waxe mm-hmm. lim ko jaral pour mu yàqu na la ko jaral yow pour mu baax dëgg kon loolu dañ koy continuer yamalañ ko ci moom ak keneen ku def lu mel ni lim defit dañuy def taxawaay tem pour jàmmaarloo ak yow ci eh, diplomatie nag duñu yàq duñu taal duñu toj waaye dinañ ko jaar fi ñu war a jaar incha allahu taala. macha allah nga fàttali ñu procès bi ban euh, bis lay tombeel waaw xam naa li ñu jot information procès bi mercredi lay tombeel incha allahu taala. Euh, le lan le premier plan grand délit bu Ndakaaru. Mhm. salle numéro un. salle numéro un premier décembre. waaw premier non déedéet eh, mercredi suba suba mercredi. suba mercredi waaw kon baax na incha allahu rabbi. incha allahu taala xam naa beneen bi nag li may tëjee rek mooy. waaw. Eh, maa ngi wax ni. Mhm. képp koo xam ne mbiru Cheikh Tidiane bii. Mhm. mu wër àddina. si mhm. ne ko Serigne Babacar si radiyallahu taala anhu waxee ca. képp ku mu naqari. bay moo nga dëkki guux ndox ndeysaan ndax sëriñ Babacar dafa wax ni fii kulli xutrin mhm. min al abtaari suuratuhu mhm. amat mazayaahu bal darat sawayaahu dëgg la gox boo dem daa fa dégg ku tudd Cheikh kon naan leen ndox dëgg la beneen bi ci desit damay tontu ndax Seydi El malik dégg naa sax ci ki nga xam ne moo doon wax mu wax ni. Mhm. Seydi El Hadji daawul def nii. Mhm. waaye Seydi El Hadji Malick daan na jël décision bu jotee Cheikh Tidiane daan na jël décision bu jotee. Mhm. ndax Cheikh ku ne xam na ni tarixa bi maawul inkaar moo koy suuxat. dëgg la. bi muy door a installé Fass am na ñu ko doon diingat am na fu mu jaar ak ñoom. dëgg la. fa mu jaar ak ñoom nag laa waral xadis ba sa tëkkuwunu fil maghribi yuqaalu Fass. aqoomu faasin aqoomu ahlil maghribi mhm. beneen bu ci def Seydil Xaaji Malik moom ci boppam ku ne xamoon na ci faydaam mhm. ndax boo xoolee téere bi mu bind ca faakihatu tulaab ba mhm. wax na fa ñi nga xam ne ñooy di nga Cheikh Tidiane boo jàngee ma nga naan wax hëkk raxmul munkiril muntaqidi ala tijaanil aalamil mu'tamidi ma wax hëkk maa ngi lay yëgal nii yow mi nga xam ne yaay di nga Cheikh Mm-hmm. ak ñi koy weddi maa ngi lay yëgal ni am nga ñàkkare yow mii di weddi cheikh ak di ko diingat. dëgg la ndax ki ngay diingat ala tijaani la alami muy cheikh tijaan mi nga xam ne monde bi yépp ko xam mu dellu ci waxu sëñ Babacar ba fii kulli qutrin min al aktaari shuuratuhu amat mazayaaw bal dara zawayaaw. dëgg la macha allah yow mi nga xam ne yaa ngi koy diingat kon. Mm-hmm. noppalul. dëgg la ndax cheikh tijaan monde bi yépp xam nañ ko te ñëpp ñooy sukkandiku ci moom. dëgg la. kon yaa ayyuhan naa'iqu yow mi nga xam ne yaay ŋaax nag ni mbaam mhm. ngir di nga Cheikh Tidiane kay fa tunkiru diyaaxa sutri aaridan yantasiru nooy weddee ak di diingat leer goo xam ni dafa mel ni xarug njël gaaral luy saaroo ci àdduna bi nga di ko diingat wallahi kon fax kay faxaalu kon luy sa pexe yow mhm. doo am pexe ndax wala yazaalu murtaqiyal maratibi simaadu yàlla du daj mukk di yëkkati martabay Cheikh Tidiane yu kawe ya mhm. li ma lay jox nag tontu yow mi koy def maa ngi lay yëgal ni wa ant in lam tatrukil izaa li awliya allahi wa darraai mhm. maa ngi lay xamal ni soo bàyyiwul di kontar ak di diingat ak di lor Cheikh Tidiane ak ñoñom mhm. ak di leen lor maa ngi lay yëgal ni kaman xaarab rabbuna alkarimi dëgg la yow dafa mel ni yàlla ngay geeral te kuy geeral yàlla nag wax dëgg yàlla mu ca am ndam wallahi wallahi wallahi kon tabarakallahu daaloon dox ndax loolu ñu la wax lépp am na nag am na sax ci biir foofu Seydi Hadji Malick wax am na fanweeri ngëneel ak juróom-ñeent yoo xam ne bu ñu la ko nettalee da ngay gën a tàkkal sa xol dëgg la waaye yëmu ci am na yeneen yoo xam ne ramsu yeddin la yow mi yow mi sopp Habiba mi nekk taalibi Tijaan am nga yeneen fukki ngëneel ak ñeent yoo xam ne yow da ngaa sopp taalibi Tijaan bi rek dëgg la kon sa xol dafay lakk mootu bi xaysikum bu ko defee ñu ngi tëj fii sunu kaa jërëjëf di ñaan ci réew mi jàmm. amiin. di wax ni itam tabaarakallaahu ñun ay taalibe tijaan lañ. Mm-hmm. bu ñu jaaree fi ñu war a jaar. Mm-hmm. ba ñu noo jéggale. Mm-hmm. ba noo def lenn loo xamante ni si luy musaawara ci diggante ay jullit ak morom bi. waaye daal lii moo ñu metti woon ñu yóbbu ko ci yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu nekkoon Moussa Gueye di président collectif international des talibés cheikh officiel jërë ngeen